mooy sama yaay Xadi Ba alignement des rues koy def booba say maam la àndaloon def ko kon yow ci biir Serigne Touba Xaadimu Rasuul bii di bisu ndar nga xam ni chrétien am na fi gan am na ci kan bis bii murit chrétien ëpp na ko ci gan Serigne Touba 38 jours la def ndar 38 jours la def fii di Saint-Louis di Sénégal balaay si biir sëñ Mbàkke maaram mu ni xoolal sama diggante ak tubaab bi walu dégg ak la dana mokkuru mbux te kenn di dégg kàndang magu ndar yi fii lañu dajale woon fekk fa la ci kër amal Xuraysin ni ko dañu bëgg nga bind leetar tubaab bi wax ka ni ka yaa yow daal ñun jàmm lañu bëgg yaa yaa ko tooñ da nga baalu mu na ngeen di fekkee kunu nu tooñ na ngeen di fekkee ku nu tooñ ngeen dem ci moom ni ko baalul fu nag mën nga fa terale gan yi waaye file fii ku fi fanaan fay xaalis ku fi yendu fay xaalis bokk na ci hôtel yi mag yi ci dar yi nga xam ni ku am sa gan du doon sa sagoo nga yendoo ko ak moom fii dex gi romb nii mi ngi jëm ca bël ba bël bi moom la sunu borom di wax ci alxuraan maxrajal baxrayni yaltaqiyaani baynahumaa barzaxun laa yabghiyaani fa bi ayyi aalaa'i rabbi tumaa tukazzibaan ci suuratu Rahmaan yow nag nga indi say gan hôtel Dada ci bisu Serigne Touba Xaadimu Rasuul bii. ñun waa Ndar amee nañ la njukkal al na ma càmminam lu baax li nekk ci dëkk bi lu muy def ci àddina su ma ci gisul du kontaan muy Mansour Faye moo taal lamp yi ba bërëng goudron yi na nga ko waxa woon dimbali nit ñi waaye lu mu def ci àddina bala muy neex mu gis ma man ma ko bàyyi laa loolu yëpp nag ñëw ànd kaak yow ci sa bi di say mbokk fekk naa kii kii du sàmmalaar kii Adja Kiné kii du sàmmalaar billaahi wallaahi taalaahi du sàmmalaar i nim la xamee bu la ko waxee danga naan ma mënul ne kii yow rek la xam xaleel nag mooy xam mag waaye mag du xam xaleel kii xam na lu baax du sambalaar li tax du sambalaar ñaari rakk Serigne Touba yii ba mu def booba amul doole di teral gan di leen gunge di leen dalal booba amul dara kon tey bu yàlla defee lii mu def si moom bu teralee gan yi ah xaw ma kan lay bett de waaye man bàyyi jaar bettu ma alaaji gii dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam ndar gii bopp ndar su noone ba bopp ndar loola amul ku ko xamul ci def lu baax waaye kii ba déwén bu déwénee su noone ñaar rakk yàgg na fi waaye li nga def si ñaar rakk sëriñ Tuubaa yi c'est la première fois yow yaa fi def. kon moom lii muy def léegi laa raccroché ak Ahmed Fall nee na ma mi ngi place Ablaye Wade fa laa bëgg wax fa jëm ni kon ñooy ànd. ma ni leen nag nit bu fekkee xaleel la ñu dem ba mu ni man ma fekk man ma ne ma nekk moom dakaar mais soo ko waxee mun la benn benn benn benn préoccupation la mooy dama bëgg jël ñaar rakk yi delloo ko fa mu nekkoon. kon bu waxee lu mel noonu ñun ñu fi nekk war na nu mën a fexe ba ñoom ñi nga xam ne ñoo yor kuréel gi. ak Mansour mu ngi tudd nga xam ne meeru dëkk bi buy def lu mel nii ngoon ñoom li am solo mooy ñu ñëw fekke ñëw teew ba ganam yi xam ni kat fonk ñoom gan fonk nañ ko waaye ndar fonk na parce que li tax ndar ñoom ñu xam ne fonk nañ ko il faut ñu xam ne ndar fonk na ko tera teeral ko ay ganam teeral ko ay ganam mu xam ni muy maire bi muy président kuréel ñaar ñaar ak ñoom ñëpp dañoo war a ñëw fekk lu mel nii. xam ni kii kat fas pour affaire bi si kanam lii laa bëgg daal. naam sëñ te ñun ñun ñun te ñun ñii nu mel sëñ Mourtala la day toog ci kippaaram dina woo ñu yëkkati xasaayit moo tax bi ma diggee fekk samay jur toog jëmmam ji dara jëy Serigne Saliou dama koy ñaanal yàlla defal ko tawféex ci barke ñaari bayit yi ma yëkkat sëñ Saliou fasante ko kóllëre ak moom sawaay du ñeewaayu keneen keneen sawaay du xàcc jëm feneen desu gëm di gëm leneen sa diina doy xarnu bi sëriñ saali woo mata jooy na ñëpp def nii nu sëriñ saaliw sëriñ saali woo mata jooy ab sang mooy ki ko doon tey jii ma jóg di ko jooy fii bil xasidaati eh, ñoo ngi siyaar siyaar bi jullit ñun yoon yëpp jullit di si jiital si siyaar bi ak nuyoo bi sunu eh, sëriñ sunu xalifa sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké di yaan yàgg fi lool te di si teg Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou Mbacke waaw waaw euh, di di nuyu sunu Serigne Serigne Saliou ndigal cuun daanaka lu jëm ci sunu diggante ak Amadou Gueye Diop moom daanaka lekolal ko lal day Serigne Touba ndax ki ñu naan seriñ Saliou mi daal di cuun moo ñu booleeg moom ndeysaan boobaak léegi ci Serigne Saliou rek nañ ko xamee bëgg mu bëgg Serigne Touba bëgg mu bëgg Serigne Saliou Mbacke jural ko. ba lépp lu taq ci Serigne Touba lépp lu taq ci Serigne Saliou daf lay bëgg faw te jëmm yàlla rek tax waaw ñu muy ñu doon ay jànkuwut xasida mu fonk ñu lool ba bëgg sunum njàng lool te jëmmi sëriñ Touba tax waaw loolee kóllëre googu moo dox suñu diggante ak moom ba lu mu xewle ndeysaan xelam na yar suñun mu wooñu te mu koy jaral lu nekk nag waaw ñu koy ñaanal suñu borom yokk ko biir ak biti ndaxte bëgg sa réew dafa bokk ci jaamu yàlla. waaw loolu mooy jëkk patriote ndax moom dafa ndar Dakar la ne fa la yëngoo waaye lu mu am mu néew mu bari dëkkam rek lay xalaat moom fii lay daw si fii lay ñëw ngir def fi lépp moom daal li muy def daal bu sañoon yool bi ñëwaat ci ndar waaw moom loolu loo ko dafa dafa ci moom ba ndeysaan xanaa ñu ko gën koo ñaanal rek ndax ndaw la bu dëgmal yàlla bëgg yàlla mënoon naa woote leneen ak leneen te su boobaa it nit ñi wuyu si ko. ndaw ñi mel ni ndax li mu waxoon ne jox leen ma ndaw ñi waaw ma def si ñoom la Serigne Touba daan def ci mag donte yeewu ma ko ma bàkkeelu ko loolu nag dafa am ñoo xamante ni di leen yóbbu ci daara ja am ñoo xamante fii la leen fekk seen biir kër yi defal leen leen defal moom daa bokk ndax Serigne Sall dafa ne ku bëgg a ami mag da ngay nangoo yori gone kon ndaw yi Serigne dafa jiitu seen xol moo tax bu ñu màggee mun ñoo def leneen mun ñoo def leneen lu dox jëm fa Serigne Saliou waaw loolu moom kéemaanu kéemaanu Serigne Saliou ndax Serigne Saliou ñëpp xam nañ ni ndaw ñi dañ ko dëgmaal moom suñu chance la ñun ndaw ñi moo tax duñ def dara lu dul sant ko rek waaw lépp mooma